dafa kontaan itam euh, le golden boy ñu naan ko Wally Ballago Seck euh, moom itam euh, temps yi passé même pas deux jours wala quatre jours mi ngi woon fële ci Almadi doon def li ne aussi moom di soirée xam ni nga xam ni kii peut-être il paraît que dafa amee malaise. Mhm. daal di foofu ci soirée ba. boo mhm. gisee réaction am rek nga xam ne kii ça fait mal quoi ça tamit.

bersuka Harapan kali Harapan ma ma war ma woon en tout cas ma woon def ci code comprendre naa la amul problème ci jubul xam naa ni euh, du man waaye moom nga ma wax amul problème def naa ci code ci jubul euh, est-ce que tamit jotul Wally Seck di di bi muy noppalu des fois bu dóoree tey wala boo toogaat benn bien vrai que nag ak orchestre am bien que musique moo leen dundal programme bi aussi moo leen dundal c'est vrai mais est-ce que jotul tamit des fois euh, ñuy ñuy ñuy ñuy

xam nga yóbbu fan sa kër toog foofu noonu. pourtant man mii dama sonn de waxuma yóbbu sa kër noppal de. yow naa la yóbbu ginnaaw raay. mais waal yi mën naa ko yóbbu sama kër noppal ko. Sénégal ak ñii de lii mooy Sénégal lii da nga ànd nit guddeeg bëccëg suba ngoon ñu xam ne yéen ñaar ngeen dama ko ñëw fu ñu gis kii gis kii waaye au fond. non moom moom moom moomoo da moomoo da nga baax. da nga baax yow yàlla rek moo lay fay sa xol démb bi ma xiifee dëggantaan da nga ma yóbbu ba si booru tal bi jënd ma gerte caaf cent franc ba pare bokk ko ak man moo tax aw sa fay aw ma sa fay. dina la am ne. non da nga baax da nga ànd ak nit. da nga da nga ak nit. ak ni ma nammee woon gerte caaf nga jëndal ma gerte caaf cent franc ba pare bokk ko ak man man li ma si lekk est que ay cinq xaw ma six gerte yow borom baax nga amoo morom. Hmm? mais waali nag foog mu noppaliku. ah yaa ngi wax sama yu baax baax noonu. non dama lay tagg bàyyi.